man juruma la Nafi mbay moo la jur yóbbu la ci daara ja ëmb ko di ko nëbb ngeen bëgg ko ji lan nga may xuli sa bëti luqeeku yi waaye dafa am ma jaaxal yéen ñaar ñi lan moo nekk seen diggante Nafi Mbaye wax naa ko li ma koy wax fu mu jëm falaa jëm nga feera boni adunaam gas yi Ahodou. Eh? mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle. yow yëgoon ne suñu goro bu góor bi takk na Maria troisième femme loolu di dëbb kër gi ba mokk. <laughs> yëguma ko woon de <laughs> waaye bettu ma. lan cinq millions la ma laal. donc waaye bi daa pare di. trois millions yi rek lañ joxee gum kër ga. deux yi. la taa ko ñu may muur bi naan bul dóor bul saagaak yooyu xam nga rek. waaye xajal ma yow. dem doo fi dugg. ñàkk may boo lekk tey. doo yow yaa ma bett doomaraam bi nga doon amoo koy wujjal su dul ñun ah. maam pare nga wala. bi ba yaa jur kii kii sa doom la yow laay waxal. kii gisuma ko de. ni nga def te dara commencé gu. kontaan naa de.